Ramatoulaye Anta Bodian ñu ngi lay nuyu. maa ngi baax a baax yow député nga bokk itam ci coalition Yewwi Askan Wi yow yaay vice coordonnatrice départementale bu parti PASTEF euh, ci diwaanu Géejawaay yaay coordonnatrice intérimaire bu mbootaayu jigéen yi nga xam ni itam moo nekk ca Géejawaay moo jip ca euh, gox bi ni mel euh, honorable gis nañ itam kaddu yi premier ministre yi nga xam ne yëkkati na ko mel ni kuy dànkaafu amul kenn ku mën a déstabiliser euh, réew mi état bi am na responsabilité veiller ci quiétude ñi nga xam ni itam ñoo di askan wi euh, déjà honorable euh, lan nga ñu mën a indil comme tontu ci kàddu yi ki nga xam ni moom moo di élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko. xanaa di rafet rafetlu bu baax ay kàdduwam di wax ni askan bi namm nañ ko namoon nañu kàddu yi di ko dégg moom mu koy wax te mu nekk kaddu yoo xamante ni kaddu kilifa la kaddu nit koo xamante ni da sam sàmm askan bi sa eh, kaddu nit koo xamante ni vraiment tey Sénégal lu ñu daan xeex ba président Bassirou Diomaye fay nekk président rëccuñu ko ndaxte président Bassirou Diomaye Faye xam na bu baax lan mooy projet bi te xam na ni projet bi président Ousmane Sonko moo ko porté woon ñun ñëpp ñu nekkoon ci ginnaaw moo tax mu jël ko dénk ko mu nekk premier ministre Sénégal te tey ñu ngi koy rafetu lool lool lool président euh, Bassirou Diomaye Faye lu ma def rafet na et le premier ministre Ousmane Sonko mu ngi koy taxawu taxawu kilifa ndaxte lu mu wax ni sénégalais yëpp ñu ngi tey dañuy nelaw jàmm ak salaam depuis démb bu mu waxee ñi ngi dal nañu ndaxte am na ay nit yu jógoon di di bëgg yëngal dëkk bi di bëgg jaxase xelu nit ñi. mais président nu mu tudd le premier ministre Ousmane Sonko bu mu waxee nit ñi dal nañu ndaxte xam nañu moom day sàmb askan bi te rëccuñu leen fale. génnam nekkoon génn bi nga xam ne ñu ci bari ñu ngi ko doon xaar euh, ba tax na sénégalais yi di xaarandi bu baax li jëm ci wàllum reddition des comptes ndax euh, dige la bi nga xam ni itam waxoon ngeen ko askanu Sénégal ñoom ñu ngi toog di xaar. waaw ñu ngi toog di xaar te danañu xaar waaye euh, président premier ministre xaar bi bu soobee yàlla du yàgg. léegi léegi léegi dinañ ci pare ndaxte xam nga ñoom dañu nekk ay républicain ñu respecté constitution bi donc donte di nga xam ni diw ak diw ak diw alalam ba mu am nii jaaxle kii na la nu mu tudd lëndëm na nu mu ko amee leeru mais il faut que nga am ay preuve donc ñu ngi def audit yi dañu jël ay cabinet ñu def audit ñoom bu ñu defee audit yi ba pare dinañ mën a xam kii de jël na waaye nangam la jël lu mu lu mu jël nii la toll eh, ci ci xaalis ci koppar ci CFA bu boobaa nag euh, juge yi dinañ mën a entrer en jeu ñoom ñu mën a def lu ñuy def. te du ngeen kenn pression pour mu topp. bu ñu def kenn pression. parce que bu ñu defee ba instant yi ni bu ñu jëloon ay nit tëj leen donte am nañ déjà aperçu ci nu ñuy def dafay mel ni ñun dañuy fayantoo wala leneen te ñun fayantoo ñu ndaxte ñu dox loolu ñoo mag loolu ñu li ñuy def mooy yoon lum ñu may ndaxte boo xoolee sax ñun ba bu ñu jëlee présidence de la république lépp lu ñu teg lu ñu def dañ ko yàgg teg si yoon amul lenn loo xamante ni lépp le parti Pastef teg na ko tegu ko ci yoon bu ñu défendre le président le dossier de candidature de président Ousmane Sonko lépp lu ñu teg dañ ko teg ci yoon kon tey nag bu ñu jëlee réew mi lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon ndaxte loolu mooy suñu carte d'identité mooy respecter la constitution du Sénégal ba tax na même bu amee nit yoo xamante ne dañ lay atte wala da ngay layoo ak askan bi ci li nga def il faut que ñu am ay preuves yu wóor sax yoo xamante ni këyit bi nee na diw de jël na fi nangam après bu boobaa loolu du président de la république moo koy gérer du premier ministre moo koy gérer waaye yoon moo koy gérer nga jàkkaarloo ak yoon nga wax ni ñi xaalis ba nga yël nii lan moo tax nga jël ko ak foo ko jëlee ndaxte xaalis askan bi la. mais ñu bëri déjà euh, ñu ngi ne kàddu yi nga xam ni mu ngi ko yëkkati mel ni euh, ab menace la. du menace xam nga nit ki nga informer nit du du menace léegi nag nit ki nag yow bu fekkente ne li nga def yow sa tooguloo xam nga danga nga def nit yaa da nga jur muy menacé waaye bépp sénégalais démb bu bu mu koy wax gis ngeen ni président Ousmane Sonko du du parti Pastef dafa ànd ak dal. Mm. wax na di informer nit ñi ndaxte moom dafa yàgg def ay vidéo di informer population yi mhm. kon information ak menace ce sont deux choses différentes information nu mu tudd information moom la def menace nag nit ki nag doo ànd ak dal da ngay ci di ma dégg ànd mais ku ko gis dem xamante ne lii ay information naa ngeen xabaar ak menace d'accord euh, euh, daanaka ñeen ñi nee nañ ñëw ngeen fii gën gaa yéex euh, ñaari weer waaye ñëw ngeen rek convoqué ay journaliste Euh, journaliste yi nañu xool lu ñu wax ndaxte journaliste yi ñu ngi opposé wu am na ñu bëre ñoo xamante ne ànduñu ak politique euh, de l' mais ñu ngi wax lu ñu lu leen neex ñun lijjantoo ñu yooyu le président Bassirou Diomaye Faye lijjantoo ko déglu ko mais ñii ni lu ñu wax ñu ñu convoqué na nga xool ñaar yan yan journaliste ñu ak lu ñu wax lu ñu wax ils ont mis en danger le pays parce que ci benn euh, nu mu tudd kilifa. ku nekk ci armée la ñu wax bi wax ni kooku moo nangul affectation bu ko président Bassirou Diomaye fay def ba pare mën na andi conflit diplomatie entre Sénégal ak Inde kon lu ñu wax moo yéenul maanaa te lu ñu wax dafa dangereux pour la stabilité du pays lii moo tax ñu convoqué leen njëf ñu laaj leen lu ñu wax fan lañ ko teg ak lan moo tax ñu wax loolu loolu c'est très normal d'accord am na solo alors honorable euh, gis nañ itam ba supp euh, seet seetal wi nga xam ni euh, dinañ ko lancé ni ki tey ci samedi ji ci samdi googu la itam président de la république bëgg na ci implication wu ñëpp li ni mel naka nga ko jàngatee Pastef moom doo ca des ginnaaw. a ah, xanaa di kontaan rek di leen sant di leen di leen gërëm parce que li ñu def ni du lu bees. li yàgg na li dafa bokk ci identité Pastef bu ñu koy def yàgg na ñun suñu parti bi suñu credo mooy le don de soi maanaam jàppale askan bi ci loo xamante ni da leen di dimbale lépp lu nga xamante ne dañ koy dañ koy def te yàllaa tax xaaruñu ci benn fay te loolu bu ñu koy def yàgg na Pastef yàgg na fi def don de soi Pastef yàgg na fi def ay ndogu fi yàgg na fi def euh, nu mu tudd dafa dafa yàgg def daal ay kii li ngay wax noonu. pare nettoyé dëkk bi te boobu kenn fayuñu boobu jëluñu pouvoir bi donc président Bassirou Diomaye Faye lu muy wax ni dafa doon loo xamante dossier ba mais min na ko ay militant min nañ ko aussi moom tey da wax pour mën a impliquer yeneen sénégalais yi nga xamante ne bokkuñu woon Pastef ndaxte même abaat Pastef am na peut-être ay groupement yi ko daan def mais léegi ku bokk Pastef ak ku bokkul Pastef yéen ñëppay wàcc sur le terrain ndaxte moom mi day wàcc sur le terrain ànd ak sénégalais yi pour won ni ab citoyen ak président la mais président bu jege askanam donc muy doon loo xam ne dañ koy rafetlu lool lool parce que nit ki du caane que da nga ñuy jiite moo tax da ngay yaakaar ni yow ak nit ñi yaa yaa yaa leen le président Bassirou Diomaye Faye bu nekk nit ku ëmbali nit ku baax nit ku yërëm askan bi te dafa bëgg nag sénégalais bu nekk nag xamante ni lii sa devoir la lii sa rôle la sa rôle mooy du lekk ba pare nga sànni ci mbedd bi déedéet mais da nga war a éviter sa sànni ci mbedd bi boo ko mënee sax nga xool nu koy dugalee ci poubelle dafa bëgg sénégalais bu ne mu am citoyenneté xamante dëkk bi ñun ñoo ko bokk waroo tilimal di xaar pour état bi joo nettoyer yoon mi nekk citoyen même boo nekk ci mbedd bi waroo tilimal et dina am ay mesures d'accompagnement yu bëri ci topp parce que man xam naa ne lii dafa bokk suñu suñu identité bokk ci identité président Bassirou Diomaye Faye te du neen day continuer du loo xam ne da def tey pour puukure ñun lii dafa yàgg suñu ñun dafa yàgg ci suñu politique loolu la ñu gëm don de soi la ñuy def dañuy def te yàllaa tax dañuy def pour sénégalais bu nekk mu féex ndaxte ñu dañu yàgg yàgg dimbalante suñu biir ab patriote ngay gis mu xamante ni patriote bii ni temps yi dafa am ay jafe-jafe ñu defal ko levée de fonds ñëw jàppale ko patriote moo xamante ni fii ci hôpital ba am na fa ay malade yoo xam ne dañu soxla deret mu def don de soi ñoo maye loolu moo yàgg nag suñu politique loolu dafa bokk suñu ADN politique te dañu koy def te yàlla rek a tax dañ koy def te sénégalais rek a tax ngir bëgg senegal lii moo tax ñu koy def di koy remercier bu baax a nu muy impulsé loolu ci biir sénégalais yi pour woon leen yoon bi. ñu bari dañuy jàpp nii euh, Sénégal moom di nga tàmbali mbir waaye pérenniser ko moom mooy jafe-jafe bi te yow sunu sukkandikoo ci li nga xam ni itam yàgg nga ko wax euh, Pastef yàgg nay teg ay yeneen jéego yi ni mel léegi nag implication de tous ci ñi nga xam ni itam ñoom ñoo di sénégalais yi ndax am dana nekk itam lu yomb ñu ngi wax mbirum incivisme. de dina peut-être xaw a jafe mais du jafe parce que dañuy bañ jafe parce que ñu ci bëri miinuñu ko xamuñu ko mais boo leen wonee yoon bi président Bassirou Diomaye Faye après ñu wàccee si terrain bi. je pense que nit ñi dañ leen di toppandoo ndaxte ñoom dafa def yàlla yàlla dafa def ñoom nit ñi dañ leen bëgg dax leen di xool nga bëgg leen te yàllaa tax seen kanam yi moo nekk sénégalais te sénégalais dafa doon koo xamante ne boo ko wanee yoon bi mu topp la maa ngi fàttaliku euh, nu mu tudd ci batalu Joola bu mu kulee incivisme dëgg la yàgg na fi am mhm. mais bu mu amee batalu Joola bu mu kulee da nga boo seetloo car rapide yu bëri njëkk njaay dañoo bàyyi woon di def surcharge mhm. mais malheureusement état bi toppul askan bi askan bi dafa bëggoon dara mais état bi toppul askan bi jiw leen accompagner leen mais tey nga xamante ni état bi moom moo bëgg ñoo jàppale askan bi mais askan bi day topp naturellement day topp léegi nag ñun nag comme lii dafa doon loo xamante ni mit nañ ko ñun waa Pastef dañuy def ba sénégalais yëpp ànd see ak ñun mmh. ñu accompagner le président Bassirou Diomaye Faye ndaxte lii dafa doon loo xamante ni day dafa bokk ci projet bi dañoo bëgg Sénégal bu set dañoo bëgg Sénégal boo xamante ni képp foo toll fi ci àdduna mhm. di nga ne dëkk bi Sénégal de moo gën a set te loolu lañ koy dañ koy liggéey mhm. kon dañoo bàyyi ne par exemple Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre ñu wéet ci combat bi mhm. dañ leen di jàppale ndaxte guur gi nii ñun ñu ngi fii pour au moins plus de soixante ans. waaw soixante ans moom ah. <laughs> ñu ngi fii pour plus de soixante ans. wala xam nga bu ma non waxee. c'est parce que dama xamante baax te la ñuy dox. ci lu baax la soixante ans yi def li ñuy jëf la mooy tax ba ñu toogaat fii plus soixante ans soixante ans c'est le minimum ah soixante ans c'est le minimum jéego yu ñuy teg mooy tax ba sénégalais yi du ñuy voté dañuy ñuy dañuy voté waat. est-ce que ñeneen ñi itam boobaa dinañ leen bàyyi ngeen doxal parce que ñoom itam dañuy bëgg. mais mais mais mais c'est ça la démocratie bëgg dañu bëgg et puis li mooy ñun. à la différence du régime qui est, qui est sorti et ñun on va répondre à leurs actes politique par le travail on va poser des actes yoo xamante ne Sénégal la bën dina ci gis boppam ba tax na dañuy wax ne yow yéen de doo la ñuy doo la ñu si yéen leen ñoo leen joxaat beneen mandat parce que au lieu de ré de réagir en amenant les policiers et les gendarmes dañuy sànni di leen sànni ay lacrymogènes di ñuy jëf ba Sénégal yëpp gis. waaw ah, jëfu sénégalais yi ñu ngi koy xaar ci dund bi euh, ñu wàññi ko. Mhm. dina ñëw dina ñëw dina ñëw c'est que xam nga ñoom ñi ci bëri ñoom ñii ñi wax dund bi dafa cher xam nga ñaan la moo ñu nekkoon ci nguur gi. peuple bi waxul dara de. ñu yoroon nguur gi pendant douze ans ñooy wax ne dund bi dafa cher mel ni ñoom ñu en fait ñoom peut ñu ngi koy doog a sentir parce que ñoom jamono yi ñu ñu nekkoon ci nguur gi dañ daan tibb ci xaalis askan bi kon Sénégalais fu muy jënd kilo ceeb mu cher. ñoom duñ ko santi ndax ñoom ñu yore xaalis bu bëri ñoom dañoo def un mois rek commencé sonn ñu yuux mais sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo voté le président Bassirou Diomaye Faye yóbbu ko au palais de la république ñoom ba léegi ñu ngi ànd dal jiglu di ndaxte xam nañ ni président Bassirou Diomaye Faye dina teg ay jéego ba ñoom dinañ sant waaw te di wax ni aussi nit ñi ne bu ñu yàkkamti ndaxte li ñu ngi doogoo def fondation dafa mel ni nit ki nga def fondation ah tabaxagoo rek gars yi di wax ni sa sa couleur kër gi dafa bleu sa bleu couleur club bi sa sa couleur euh, kër gi dafa jaune ñu ngi ci fondation doog a guñu. d'accord ñu bàyyi ba fondation bu ñu paree suñu fondation ba yëkkati ñu doo ko wax. Euh, honorable député Ramatoulaye Anta Bodian ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay sant di la gërëm yow di fàttali yow député nga bokk ca coalition Yewwi Askan Wi yaay vice coordonnatrice départementale bu parti PASTEF ci diwaanu mm. Géejawaay yaay coordonnatrice intérimaire bu Mojib euh, Géejawaay honorable sant nañ la gërëm la bu baax a baax.